ñu dugg ci li nga xam ne moom mooy grève xale yi ñu gis ñaari fan yi xaw ma ñetti fan yi yëpp xale yi ñu ngi grève li waral seen grève boobu nag dañu bëgg professeurs yi dugg ci école yi jàngal leen jàng bu normal en tant que parent d'élève naka nga gisee loolu. lool moom wax dëgg maa ngi koy métti lu bon man bu ma sañoon jàng dafa baax man mi nga xam ne su ma damay jàng mais heureusement sama papa jàngul ma mais maa ngi koy rëcc mais su ma sañoon damay jàng parce que jàng solo parce que technologie bi dox ni boo jàngul bokkoo bon maîtres yi nga xam ne dañuy gërëm bu ñu saa ñu jàppale ñu ñi nga xam ne si ñun dañuy jël suñu doom ñu dem di jàng ëllëg man maa ngi wax nii jàngoo mais sama téléphone des fois bu may liiru dara damay wax sama doomu gars yi xoolal ma te man a naa ñàkk kon professeurs yi dañoo war a jàpp ji liggéey bi ñu comprendre gouvernement bi itam ñoom itam góor góor dem jàppale leen ci li ñu bëgg maanaam lépp daal nañuy jàppale suñu biir bon ki nga xam ne si moo gën moo gën jigéen état bi nga xam ne moo war a seere njàng moom itam nay waxtaan ak ñoom ñuy déggante parce que olof jaane wat gaal yëgoo il faut ñu yëgoo seen biir ñu jàppalante ñun ñi nga xam ne ñoo jur parents yi ñu jàng parce que jàng mi fii expérience bi seer na man mii wax deux élèves laa am maa ngi dëkk Bargny mooy sama dëkk foofu laa nekk instant yi mais lycée bi nga xam ne sama doom fa lay jàng matériel parce que bala ngay jënd dafa seer donc kon bu sañoon jàng mi daal nañ ko jàppale xale yi ñu jàng kenn ko lycée wër sa jàng yi boo ko amee yàlla may la ko. Euh, nga ne xale yi lu ñuy lu ñuy ñaxtu ne dina am saafara. non ñaxtu bi moom wax dëgg moom xañ na élèves yi xam ne suñu ñaxtoo xam ne dina am sens waaye li ci ëpp solo mooy bon professeurs yi nga xam ne ñooy jàngale dañuy waxtaan ñi nga xam ne ñoo leen jiite ñuy ñuy jàngale. bon kenn ku nekk ñiy jàngale ñoom itam kenn ku li nga xam ne si bu weer dee yaa ngi am ci état bi moo xam muy jóge ak fu doon ñoom itam dañu góorgóorlu ci loolu ñu leen koy jox ndax dëgg neexul nit ku nekk booy liggéey bu weer dee na mi ngi nii ñoom di fekkee côté boobu moom la ñuy na état bi góorgóorlu ci problème boobu saafara ko lépp man a tegu ci yoon réew mi jëm kanam ndax réew mi réew mi jàmm la ndax réew mi boo xam ne Cheikh baa moo fi tëdd Alaaji Malick ah Boukounta Ndiassane Maam Limaamu Laay ak Baye Niass wax dëgg Sénégal moom jàmm laa fi gis te moo fi mas a am nukk ci àddina nañu góorgóor rek ñu jàppale ñun ñëpp te mu ñu leen di daal àddina bi loolu moo fi dox léegi fi mu toll ndax jamono bi jeex na ba pare waaw dund ak dee jege na lool waaye nag yàlla yàlla may ñu kàttan ba ñu fekk suñu njariñ doom ñu am fan ak wér parce que kenn boo sañoon sa doom dana jàng ba jàppale ci liggéey man mi wax ne sama doom bu ma soñante dama jàppale ci liggéey parce que quatre heures matin laay xëy xam nga loolu metti na nga ñëw ba fii toog di jaay am sa wërsëg nga dem ñibbi loolu yombul daal kon nañ jàppale suñu biir ndax ñu def ay Sénégalais mais jamono bi léegi changement bi dafa bari la xew Europe buñ ko dundal fii ndax ñun ay nit yu ñuul lañu xamuñu coono ak fitna li ñu xam mooy jàmm ak salaam ñu góorgóorlu liggéey jàppalante ñu loolu lañ xam kon nañu jàppale daal ci kàttanu yàlla daal loolu daal maa ngi ko ñaanal ñëpp nañu jàppale daal ñu góorgóorlu baax daal du dëgg voilà merci beaucoup. ñu faral di gis fan yi yëpp xale yi nekk sa bopp di grève grève bu ñu dara ndax dañoo bëgg a jàng naka nga jàng waaw grève bi élèves bi bëgg nañu jàng sax mais en prof bi prof état ñoo am problème ñoo am problème te yaakaar naa mooy ñaax président de la République mu gestu par exemple professeurs yi euh, li xam ne moom lañ revendiqué ñu teel koo faj quoi ñu teel koo faj parce que am na ñoo xam ne ñu def terminal wala def fac yoo xam ne te programme bi tardé na am na élève prof ah, ah, ah, yoo xam ne seen programme tey dafa tardé kon solution bi il faut que solution daal teel say biir wax en tant que étudiant tey ñu gis ne euh, ñaari fan yi xaw ma ñetti fan yi ñu gis xale yi ñu ngi grève lu la waral seen grève boobu mooy dañoo bëgg euh, prof yi dugg ci école yi jàngal leen naka nga gisee lool waaw loolu mën naa ne instant yi nii grève bi metti na tellement xam nga xale. boo nekkee xale nekk si école di jàng xëy huit heures ñëw neuf heures ñu arrêté bët set aussi ñu ne neuf heures débrayage jeudi ñu ne grève totale xam nga loolu tam day metti surtout ñi muy gën a touché mooy ñi nga xam ne ñu ngi war a def BFEM ak ñi war a def bac parce que da ngay nekk classe examen yaa ngi dégg nga yor un programme boo xamante ne nii par la force da nga ko war a jeexal alors que da ngay xëy semaine bi mën naa ne doo ci def sax quarante huit heures de cours semaine bi doo ci def sax 48 heures de cours yoo xamante ne ni jaar na yoon avec saa nga am benn programme boo xamante ne ni danga nga ko war a mën a jeexal nekk en classe d'examen am lu lay xaar ci sa kanam kon effectivement bu enseignants yi toogee di grève élèves yi li leen war mooy ñoom ñu gën manifester pour que jàngaro boobu ñu saafaral leen ko te pour ñu saafaral leen ko ñoom tam du ñu toog di xoole kon day mel comme si que ñoom grève yi dañ ci ànd quoi mais buñ gënee manifester wane ne lii neexu leen wone seen seen wane carrément ne grève bi metti na leen quoi bu boobaa ñoom peut-être gouvernement bi dina réagir xam ne xale yi kat bëgg nañ jàng wala xam ne xale yi kat grève yi neexu leen kon ñoom war nañoo réagir neneen raison pour laquelle ñoom il faut ñuy génn di manifester wu quoi. jàpp am solution. Oui, peut-être on va trouver une solution parce que je me rappelle l'année 2017-2018 amoon na ay grève yu méttee méttee métti yaakaar naa moo gënoon métti yi nii sax alors que on a sauvé l'année quoi donc cette fois-ci jàpp nañ ne année bi nañ ko sauvé incha allah.